damaa war a tiit euh, ma def communication bi xam ne tudd moom sax ordre bi donc ba dégg imam imam neen sax dama wax né amna ay site maçonniques je parle pas de site maçonniques man ordre bi la la indexé et surtout yenn médecins yi qui sont prêts à tout faire di nga Cheikh Bamba parenthèse lay def ci lolu di nga délégué médical yi. ñu woy délégué médical. délégué médical. garap yi ñuy jaay. des fois dañuy ñëw approché yenn professeurs yu mag dañuy jënd pratiquement yene professeurs yi.

professeur yu bëri seen yenn voyage yi délégué yooyu la ndegam délégué kese moo la mën a par un lobbying jël en otage un professeur de médecine mm-hmm. ba mu koy bindal garabam en première lieu su garabam amul lay soo ko jox benn garab massa nag euh, organisation mel ni euh, ordre boobu may tudd li nga xam ne il est présent dans 120 pays puissance bu mu am Vatican sax instant euh, ilifatu ko mënu ko ilif mm-hmm. moo tax Vatican di ci wax donc kon dama attirer attention ci situation boobu man bokk naa si xam ba site Lamine demee principal dama am métit bokk na tam si ñuy xamee ba imam daw demee fan dama am métit ji ñu ma waa principal wala waa fan waaye euh, dama xam état ak état nu mu sewee ak nu muy jëflanteeg ñenn ñi xam ne koy déranger léegi nag artu boobu ma artu kese fa la yem ba ñu ñibbee def live boobu le lendemain dañu lancé cagnotte bi ma wax ko ku mel ni Adibal ku ñuy wax Adibal Jim nit ku baax la mu ngi fële Canada euh, xeexkat dëgg la euh, dafa jël journée bañ a liggéey pour toppatoo cagnotte bi jël journée congé lii lu extraordinaire la ndax fi ko imam toll mu bañ a dem liggéey ñi bañ koo fay pour toog toppatoo cagnotte boobu donc lancé cagnotte bi balaa ñetti waxtu dépassé nañu vingt millions xam ni euh, imam dafa nekk ci xolu sénégalais yi Bamba léegi nag mhm. euh, li am mooy ci jour boobu man ci laa bind si la ma sama benn mbokk bu baax nga xam ne xam naa du bëgg ma wax turam euh, booleeg médecin chef hôpital bu mag bu nekk turki mhm. ma bind leen laaj leen ñu ne ma jox ñu dossier Imam Ndao ma dem woo médecin bi nga xam ne moo ko opéré ne ko dama bëgg dossier Imam Ndao mu jox ma dossier bi ma envoyé ko waa Turquie mu gëstu ko ne ma joxaale ñu passeport am photocopie passeport am Abdallah men bi nga xam ne jege imam euh, taalibe imam mhm. laa ne envoyé ma photocopie passeport imam pour ñu régler waale visa bi une bonne fois pour toutes mu envoyé ma ko mhm. ñee ne ma léegi mettre ñu en rapport ak hôpital pour ñu defal ñu résumé de la situation de de de de de de, imam. Euh, en anglais parce que ñoom anglais ñuy fonctionner. ma woo la docteur ne ko defal leen ko c'est rapide comme ça maximum bala mardi ñu mën a yóbbu imam. xam nga ni lii sérénité bii nii. su gars yi di wax dañoo bañ ay nangam. ñun bañ ñu dans le nihilisme. ci jour boobu am nañu lépp 20 millions. vingt millions macha allah am nañu am nañu lee ba pare ñu ngi doon xaar hôpital kese moo ñu tàttal. hôpital ñu doon xaar ñu confirmer Euh, pour ñun ñu mën a am yóbbu imam waaye dafa am tamit lenn lu sew lu am foofu euh, Cheikh Bamba. mooy lan. hôpital bi si woom. Mhm. yónni na benn nit. maanaam ban hôpital. hôpital Fann Fann. Mhm. sas na kenn ki nga xam ne kooku la tàmm liggéeyal. pour ay évacuation sanitaire d'accord ne ko xoolal ñu benn point de bu ñu mën a yóbbu imam parce que plateau médical Sénégal xaw na tane waaye suñ koy mhm. évacuer ñu ko war a yóbbu fii xam ne moo ko gën moo tane. ñu gis ni visé woon ay dëkk ñoom ils avaient visé la Turquie.

Euh, nga xamé ne source nañ ko ci wàllu hôpital fan ne ko pour ñu xol ñu évacuer imam hmm. li mu leen tontu mooy imam euh, cas bu nek nekk bu mu am du feebar bu particulier ñu bëré ko feebar fi gisunu lu tax ñu war ko yobbu lii moy le palais. ok le palais la répondre. dañoom li dañu japp genre AVC la jarul ci si ñu si yobbu nit. donc parce que amna ñu bëri ñu am AVC Sénégal li moy la position officielle du palais. bu la waxé ci ginnago googu la première dame mom wotale na ne dafa bëgg yobbu yóbbuwaatee. Hmm. Euh, chef Bamba sa xel ta dal. ci kii xam ne tëj na la. Mhm. torturé na la man imam wax na ma ne ma daal nañ ko def ay mbir ci yaramam man daal nañ ko def ay laser yi nga xam ne. moom jàpp ne am na lu bëri lu ñu yàq ci ay sititëb surtout yaram mhm. yàq nañ ko ci biir kaso bi dañ koy ko tëjee kaso li imam si boobu wax na ma ko man te jàpp naa ne sax wax na ko ci ay émission war na ne carrément ko doon sonlé ak condition yi ko def nee ba mu génnee ci ci ci détention euh, carcérale boobu mhm. dem seeti docteur bu ko xool yaram bi dafa waaru naka la def moom bay dox ndax sa yaram bi yëpp ay tookeeg jàngoro la. Ah, euh, Cheikh Bamba imam dafa dëgër rek te di jàmbaar. jàng ci yonent bi saa sam ne jàmbat du yoon moo tax jàmbatul. mais imam a été atteint en prison te man foofu laa wax ne l' état est responsable nag. la responsable de l' état du hôpital laa ko laa ko laa ko laa ko mm-hmm. la prison la état tàmbale euh, jàpp ne moo war a éliminer imam Ndao élimination boobu nag. moo taxoon ma jàpp ne waroon def autopsie pour xam exactement naka la ko état bi defee def na ko moom loolu ñu amul sikk sàkk imam Ndao shahid la état Sénégal la ko rey Macky mii moo ko rey léegi nag naka lañ ko reyee mode opératoire bi la ñu bëggoon xam pour mën a sauver waale ñeneen ñee xam ne ñu ngi dox ci tànk imam Ndao et que mën leen jàpp yóbbu leen biir kaso tëj leen benn jamono génne leen ñu toog di soox ay benn at ñaari at ñetti at mun naam sax man ci ñooñu laa bokk donc euh, donc Euh, alhamdulilah nag njaboot gi après waxtaan ndax lépp njaboot gi la. ñun am ñu responsabilité ci imam. ñun suñu avis la ñu am te dara du ñu noppiloo ndax dañ ñoo wax loo dëgg même bu ñuy dee. fu ñu fekk du dul yoon dañu ne ah du yoon fu ñu fekk lu rafet dañu ne ah rafet la dama ne imam bu ñu ko bàyyi woon ñu yóbbu ko France bu fa yeewoo xippi ne fan laa nekk ñu ko France saa nekk métti xolom kese wallahi na ko rey. ndax xam na bu baax lan mooy France xam nañ waa France suñuy liggéey imam wax dëgg yàlla foofu doonte bu kaay donc kon ñun si guddi boobu nga xam ne amoon nañ tout dañ doon xaar lendemain matin pour hôpital bi euh, confirmer comme ça ñu arrêté cagnotte bi jël xaalis boobu yóbbu imam ñun yépp doon xaar ci matt bi far nekk te guddi bi moom moom fekk yàlla noppi ñun nag dañoo bokk si juuti yi xam dañoo gëm ni euh, yàlla lépp lu mu namm nammal na ko ajal euh, ku àppam jot ko fee bàyyi ku àppam jotul tamit kenn mënu ko yóbbu waaye kayfiye bi maanaam ni ñu defee ba yeggalee foofu kooku islam diine bu scientifique la diine utub xam-xam la ndegam yàlla moo ñoo ci alxuraan nañu afalaa tadabbaruuna alxuraan kon yàlla du ñu bàyyiloo ñu bañ a xool doomu aadama gëstu ko leer leerlu ko pour la postérité pour la justice la vérité donc lii kese moo taxoon ñu ñu xam donc man jàpp naa ni le dossier du imam a traîné mhm. ci bañ ko waree évacuer ndax temps bu nekk comment dafa yàgg trop alors que les fondamentaux étaient stables madame, ils pouvaient être évacués Nous ko évacuer. li ko yàggal jiiñu responsable bi ñu dénkoon dossier bi xam naa je da sais pas koy parce que média la ñu nekk. jiiñu ma ko que naa ni peut-être il de bonne foi. ma mm-hmm. vraiment indexé wu ma Sénégal, waaye état Sénégal am na jumtukaay. Euh, wax ne diw tel dossier je dis non parce que nous avons dañuy laaj état Sénégal ndax yaa ngi ministère de la santé bi xam ne mooy responsable hôpitaux yi. tout à fait il y a un conseil bien, mais moi l'interface entre le palais le palais et le ministre de la de de la santé kooku bu bagné kenn dem fu waaye mënti jaar wallaay dem donc man gëm na ni y a des instructions qui qui ont été données xaw par qui xaw comment par quel moyen mais c'est pas normal dossier d'urgence quelqu'un qui est dans le coma ah, ay fani fan personnalité publique d'importance capitale comme Imam Daou, il traîne pendant une semaine il dëkk bi mais Bamba y a des gens qui n'ont pas voulu qu'il sorte de ce pays dis-moi la vérité. ces gens là ils sont assez lâches pour pouvoir